الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسام فيلوبي كوسي تي في جسام فيلوبي خم غا باي بن واي نيونا تي موم ني باي خليفه تاي دنا داني سارك جي فك بوبم بوبا كي بو ماغ مو خاو كونغري بو ماغ مو خاو كاولا سيرين جيب تيو mu ne bay khalifa dana daane tey sa rakk ji mu foog ne bay khalifa dafay kontaan ci boo xàggee danga fekk yonent bi ci wàllak ndeyjooram Cheikh Tidiane ci wàllak càmmooyam demal waaye bay xalifa daf koo gàttal rek wax ko saayir bi waaye baay mooy yonent bi mooy Cheikhu Tidiane ah léegi nag waaja dem ba bàyyi defee waxtaan sëriñ Fallu Mbàkke nga fa kontaan sa Saydu nooru Taal gaa yooyu yëpp bég kontaan si mil ko mbaxana na dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima mooy aalimul allaama mooy cheikhul islam mooy nangam mooy nangam waaja jóg taxaw ne ko man nag dama am laaj bu ma lay laaj mu ne ko ban laaj mu ne ko man damaa am jur goo xam ne doomi xaj ak xar la doomi xaj ak xar xaw ma xaj mooy baay bi xawma xar mooy yaay bi walla xar mooy baay bi xaj mooy yaay ji mu ne ko dama lay laaj dañ koy tabaskeem dagan na ñu rendi ko tabaski walla dagan na ñu rendi ko ci ngénte walla dañ koy jàppee comme xaj ñëpp ngëb seen gémmiñ bàyyi ne ko nañ dem seeti ko dafay meem walla fay bow su meemee mu ne ah mu ne ko mu ne ko xar la nañ ko rendi su bawee nag xaj la waaja taxaw ba mu yàgg mu ne ko dem naa seeti ko waaye meemut bawut ah waa ji dëgër na bopp de meemut bawut bàyyi ne ko kon nañ ko indil ñax indil ko yàpp su lekkee yàpp yu comme xaj la su lekkee ñax kon xar la léegi mu ne ko indil nañ ko lek indi euh, yap way lekut ko indi ñaxi tamit waaye ko bayina ko kon koku dafa dee kon nauduhu min al amwat ci la doga taxaw nak simmi mantam ba solal ko bayina ko deug deug yaay seexu kamil khalifa ñe sam mag waxon na mané suma ñewé dana fekk yonentou bi sa walang day jor fekk Cheikhou Tidiane ci sa wàll ak càmmooy waaye man fekkuma fi fekkuma fi Cheikhou Tidiane ak yonent bi waaye dama wax ne yow yaay yonent bi yaay Cheikhou Tidiane kooku mooy bàyyi Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh xam ne képp ko miin mu Cheikh Mouhamadul Ibrahim miin nga ko muy suñ njiit suñ kilifa suñ magam taalibe moo xam ne xëyam ak ngontam ci nañ xitmaal sëñ bi rek ci la ne. te xitmaal sëriñ si fi la yëfi ne lu nit gàtt gàtt gàtt xalawa te bàyyi bëri na mu wax lam la wax nga bëggoon sa ko wax ko fekk moom moo ko wax xanaa loolaay tax nga gàttal lu ci waaye moo ne inna lazina xaddamoo ni naaloo muraaduhum sahaadatu wa maalo te sëñ keebaaloo xitmaal Cheikh Mouhamadul Makki ci la ñuy xiir ci xëyam ak ci ngontam moo tax yenn saa yi ma ne ko yaay suñ magan talibé yaay suñ jiit way suñ jëf buy fukk yaakar naa ne juróom ñent yëpp mi ngi soqe ko ci yow kon kooku mooy keebaaloo alaaji keebaaloo wala ustaas keebaaloo baxal ma ci turu keebaaloo bi ma gàttal parce que li la yàlla may bun ma ko mayoon it ma gën a sant yàlla waaye moom la ñuy jox micro bi buñ xàndeeg moom ci bëgg sëriñ bi sëriñ bi nag du ma nangu ne kenn na ma ko gën a bëgg du ma nangu moom waaye bu ñu xàndeek moom ci bëgg sëriñ bi moom moo ma gën a xam sëriñ bi ndax lim xànd ak moom tukki xànduma koog moom lim jitaayoo ak moom jitaayu koog man